Agnès le directeur général de la CBEP Nous avons def rencontrer le personnel Nous avons ñu les service juste deux jours lundi passé Nous def ko euh, pour mu parce que nous jàpp ne euh, li ñuy xaar dafa bari tax accélérer ko pour def rencontre le personnel mu nekk benn point si nous avons a def ak ñoom ñu sant leen gërëm déglu du début à la fin mais li ci gëna wax posé nañu problème seen doléance mais li ci ëpp solo nous ñu xam ñun dañu andi pour ñu jëm ci problème mais loolu nag aussi bu ko amee ko le président de la république ak son premier ministre ñu ñëw bien que xamoon nañ kër quelques difficultés yu fi

mooy d'abord il faut que ñu am la confiance des autorités l'accompagnement des autorités c'est-à-dire que autorités étatiques yi lañu ci lolu ba nga xamantene projet état bi dañ am dañ fexe bi yëpp ñëwaat fii nii bi moy personnel bi nga xamantene ñoo fi nek yalla def na mu nek ñoo xamantene ñu engagé déterminé mais ñoñu aussi ma ñaanat len ñu gëna a sen dynamisme c'est-à-dire sen engagement ak sen détermination benen bi nga xamantene ne mu lay nga xamante ne si sama solution yi la bokk mooy dalal xelu partenaires yi nga xamante ne ñoom ñu doon am projet di ko indi tey si structure bi agence bi et loolu nag dalal boobu nag dañ koy teg si ñaari anam benn bi mooy Sénégal tey changé na ñu am beneen taxawaay boo xamante ne moom la autorités yi am tey mooy ñu dem ci

ah ñu gën a tallaat loxo nag autorité parce que nag dañ koy wax mu leer il faut que mu am la volonté politique te volonté politique boobu nag kenn mënu ci dimbale ku may le premier ministre le président Ousmane euh, Ousmane Sonko ak le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye et je pense bien boo déggee seen kàddu ci côté boobu mooy nu ñuy def les fonds du Sénégal les ressources du Sénégal et loolu nag mënul jaar ci lu may parce que dañuy centraliser lépp loo xamante ne day nekk lu ñuy dépenser xaalis Sénégal comme ça au moins dina mën permettre à ce que état mën a économie def ay économie yoo xamante ne dina ko mën a jëriñ mais aussi également mu permettre ko à ce que mu mën a bàyyi xelam mën a gis la gestion comme ni ko bëggee loolu mooy indi woon tey ñuy wax ne euh, li nga xam ne mooy seen euh, parole bi nga xamante ne chaque fois dañ koy wax mooy nu ñuy def ba mën di andi ànd ak jub ak jubal ak jubanti ba nga xamante ne mën a permettre à ce que ñu mën a yaxanal li nga xamante ne moom la Sénégal yi bokk. loolu daal mooy objectif bi nga xamante ne moom lañ am tey si structure bi ñu nekk